Heavyweights.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 nii la demee ab opération mixte la gendarme ak policier doon def ci béréb yooyu naka noonu ci lañ leen tegee loxo AF ñu fekk ko ak pistolet MD moom ñu fekk ko ak ay bali fetal bi ñu leen interrogé na AF di ab menuisier moom bi ñu ko laajee daf ne dafa ñëwoon ci marché bi ngir jënd ay bali fetal naka noonu ci lañ ko boolee ak MD <laughs> jënd bali fetal ci marché MD baykat moom bi ñu ko sëkkatalee laaj ko def ne balu fetal yi daf ko for <laughs> cey mim réew gaay bi ñu defee seen percussion ca kër AF ca quartier Ndoye nekk ca Mbàkke li ñu fekk romb na doy waar ndax fekk nañ fa benn fusil juróom fukki cartouche plomb ak fukki bali fetal opération mix boobu na police ak gendarme ñoo ko doon def ci gox yooyu ngir këppatal samba boy wa waaw góore waay moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona la wax te càmmi nag li ñu ko jiin romb na doy waar ndax bàyyi doomam bi mu doon génnal ba am ci moo ko jiin viol dogal ba ñu tëj ko ci atu yàlla ndax problème mu waaso eskay ma ne teecam passé na atu yàlla ci maison d'arrêt et de bu Saint-Louis ndax baayu xale bu mu doon génnal ci boppam nee na moo ko kompaloo jiiñ ko viol ba noppi chargé dossier bi ne dafa jël ay photoy doomam yu mu defee dung publier ko ci groupe whatsapp août 2020 la xewan ca njum ñu jàpp teecam ko atu yàlla ba noppi setal ko wecc wecc wecc ne deful dara gannaaw nag bi xale bu jigéen bi fippoo dal di klaate kompolo baayam dem leeral lépp ci kanamu yoon <laughs> ma ne ko waaw góore waay moo tax keccam bi mu génnee nee na lu tax paa boobu def ni mel ba kompolo ko ñu tëj ko atu yàllay kaso du lenn lu dul problème mu xeet ndax nee gox boobu ñoom ñëpp xam nañ ne da doon génn xale bu jigéen bi yàgg na ko defal lu ne ñoom ñu xam ko waaye nag bi ci ëmb amee loolu la baay bi mënul digérer tax mu dal di teg kompolo boobu ba ñu daan ko atu yàllay kaso ci kaw rek ay problème mu xeet te cam yokku ci ne bayu xale bu jigéen bi ko jiiñ ci boppam jàkkaarloo na ak moom ne ko duma la mës a may sama doom ndax tëgg nga tey Sénégal te cam nee na nag tëj bi ñu ko tëj kaso ko dundam yëpp la yàq ndax amoon na liggéey bu baaxam bi mu nekkoon doon ci faj ay soxlaam di ci dimbali ay way juram waaye léegi dundam daanaka lépp kasara la ma ne ko Sénégal de mu ngoog dañu lay tëj rek tijji na defoo dara génne la bàyyi nga dem dara du ca topp mu doon seen xibaaru buzz di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz